gannaaw bi ñu amee premier week ci mois de novembre bi euh, bi ñu génnee ci nawet gi ci loolu nag ñu ngi am benn journée de désherbage ak nettoyage du cimetière musulman de Yoff ci euh, boobulee journée nag ñu ngi am euh, benn mouvement ñu di ko wéy taxaw pour bon bonne cause ñoo bëgg a environnement bi nga xamante ni fa suñu néew yi nekke ci loolu nag Sadibou Tall vice-président du mouvement taxaw mu ngi xamal ni fayu yàlla moo leen gën moo waral li di mel. waaw di sant tey ñëw ngeen fii ci cimetière yi ñu am programme bu xamee ni dañ koy taxawee at mu jot programme bi nag di désherbage maanaam maanaam mbayum cimetière mi nettoyé ko at mu jot ñu ko daan def ci autorité commune bi maire bi ñu ngi koy profité di ko remercier bu madame la maire qui nous soutient beaucoup ñoo ngi remercier aussi grand Serigne de Dakar nga xamante c'est un kenn la ci mouvement bi ñi grand Sëñ Issa Touré une autorité religieuse boo xamee ni moom moo daan jiitoog ay taalibeem raw raw ñoom Modou Karaak ñëpp sëñ Modou Karaak ñoom ñëpp dañ fi daan ñëw di di liggéey donc ñoo ñëpp vraiment nous avons pris dañoo jël bal bi rek di continuer œuvre bi donc ci um, pay bu dul fayu borom bi donc dajaloo di ko def di sant ndaw yi nga xamee ne ñoom de façon volontaire ñoo ñëw taxawee ko donc at mu jot bu ñëwee dañ koy def tey mooy tàmbali bi mais day continuer di programme fii ba at mi ba ba fin dane xam naa ni dina war a jeex fii nag deux mois trois mois lañ ko natt mais bu liggéey bi jeex parce que ci biir ëpp na ay soixante secteurs yoo xamee ni yu mag la ñu cimetière bi donc loolu la ñuy taxawee tey nag moo doon lancement bi ci njiitalu vraiment autorité dëkk bi autorité communale bi at ñi nga xamee ne aussi ñoo ñoo nank mouvement bi mouvement bi donc di mouvement boo xamee ne bëri na programme yoo xamee ni ñu ngi koy doxal ci Ramadan Euh, ci bëtu tamxarit ci ay action yoo xamee ne aussi danañ ñu saisir mais li mu gën a ciblé daal ñi nga xamee ndimbal bi mi ngi gravité autour du cimetière de de de Yoff rax ci dolli Alioune Badara Kébé di ancien international mu ngi xamal ni que wareefu euh, bépp citoyen la mu daal di taxawu ci cellu euh, bërëb yooyu lépp. tey ñu ngi fii si cimetière Bakhye Yoff pour nettoyer vingt six hectares yi. di sant yàlla bu baax a baax di gërëm suñu yaay booy bi mama Aïcha bi nga xamante ni wax dëgg yàlla si cimetière la ñu xamante eh, ak équipe bi mu àndal yëpp donc euh, di wax ni lii devoir la rek lii dafa war a bokk si suñu constitution maanaam chaque an ñuy nettoyer cimetière yi kenn ku ne gox ba nga dëkk man sama mag a ngi fi keneen waajuram keneen frèram sœuram donc lii euh, devoir la rek di ñaan yàlla Euh, ñu koy teewee ay année di gërëm ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi ciy jàpp de près ou de loin. kile moo ngi daal di profiter ci bile occasion ngir rek jajëfal ak félicité personnalité yi nga xamante ni ñoo daal di jàpp ci liggéey bi ngir mu gën a yemb waaye itam mu ngi woo bépp jeune bi nga xamante ni mu ngi àndal ak dooleem ak kattan ngir rek ñu rejoindre leen ci boobulee liggéey ndaxte boobu boobulee liggéey day daal di jëmale kanam réew mi. bokk chrétien bu ñu ñëwee dañoo rendre mu monnaie parce que borom daara daf ñu doon jiite ñu doon dem Saint-Lazare dem di ko fa def caaro yi dañu doon dem doon ko fa def dañ doon dem fii nii Soumbédioune gars yi naan ko bétuwaar de Dakar dañ fa doon dem doon ko def Yoff tamit dañu fa doon dem di def teew kon initiative bi nii ah ñu ko fi def rafet na waaye ñu doon ñu ngi rafetlu bu borom daaru yi ndax moo ñu doon groupé ñun ñëpp génne jeunes yëpp indi ñu si cimetière yi ñu jóge fi dem Caaroy jóge fi dem Saint-Lazare jóge fi dem bétuwaar jóge fi dem fépp kon ñun essayé ni du ñu def lu dul xam ne daal on a un à relever loolu kese la. am na ñoo xam ne ñu ngi kër ga ñëwuñu mais ñu ngi fas am na ñoo xamee ni seen seen seen yaram ñu mewuñu ay armère kon ñu ngi ci kër ga ñoom ñu ngi durus ñu ngi ñaanal gars yi fi tëdd mu ngi ko dugale ci page rek ne initiative nekkul ku taxaw rek yaa am de mais am na ñoo xam ne bëgg na ñëw mais affaire bi yéene la xol la ñoom dañuy def au fond di kër ñu ñëwul tamit ñu leen di wax ne suba incha allah ñu ñëw. su ko defee ñun ñëpp lépp affaire bi rafet initiative yi di leen sant di leen gërëm di wax ni jaa jëf. waaye nag lu des ci mbir mi mooy soxla nañ ndimbal ndimbal bi nga xamante ni mu ngi jógee ci nguur gi.